wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiya allahu tabaaraka wa taala an saxaabati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa laa xawla wa laa quwwata illaa billahi al-aliyyi al-aziim al-xadiisu ath-thaani wa ath-thalaathuuna nee na an abi saidin hmm. jëlee ci sayiduna abu said hmm. di sahaaba yonentu hmm. bu màgg boobu turam mooy saad ibni malikin ibni sinaanin saad doomi malik doomi sinaan alxuduriyi mm-hmm. kay gu ko jug xudura mm-hmm. giiram la mm-hmm. waaye bokk ci lansaar bokk ci xasraj bokk waa madina radiyallahu tabaraka wa taala anhu euh, turam nag ñu bari miinuñ ko dàkkantalam rek la nit ñi gën a xam mm-hmm. abu said mm-hmm. alxudri mm-hmm. baayam di saad ibnu malik baayam a ngi faatu ci xaswatu xudin wax nañ ne bokkoon na sax ci ahlu sufa ahlu sufa mooy ñooñ nga xam ne la ñooy ñooñ nga xam ne ñoo neewoon ci mbaar moom mu nekkoon ci càmmoñu jàkka yonent bi sallallahu alayhi soo fa demee léegi da nga gis ni ñooñ yàlla ñëpp foofu la ñuy jotaayoo buñ demee Medina bu njëkk neewuloon ci biir jàkka ji waaye léegi ci biir jàkka ji la bokk nekk ci gannaaw fi ñu denc yonantu sallallahu alayhi wa mhm. wa mhm. na ci way ndawi saxaaba nag mhm. waaye néew na ci ndawi saxaaba yi ku ko ci gënoon na fonk xam-xam radiallahu tabaraka wa taala anhu ndax daf daa teewee jotaayu yonantu sallallahu alayhi wa sallam mokkal ci xadis lu tax ñu boole ko ci almukthiruuna saxaaba yi dafa am ñu ñuy tuddee almukthiruuna mm-hmm. ñi nga xam ne luñ soloo ci yonantu te nettali ko fa bari mm-hmm. am ñi nga xam ne ñoom lu ñuy tuddee almuqilluuna mm-hmm. ñi nga xam ne luñ soloo jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam bariwut moom nag ndaw loo li la koy xamal mooy xaswatu Uhud ba mu bëggee dem dañ ko xool ne ko xale nga mënoo dem gannaaw ga nag li ëpp ci xare yonantu sallallahu alayhi wa na leen ba ci bayaatu ridwaan gi nga xam ne yàlla tudd na ko fekkee ci suratul fatxi laqad radiallahu anil muminina jëlee na xadis ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam jëlee na xadis ci abubakar radiallahu anhu jëlee na xadis ci umar ibnul xataab jëlee na xadis ci Uthman ibnu Affan jëlee mm-hmm. na xadis ci Ali ibnu Abi Talib jëlee mm-hmm. na xadis ci Zayd ibnu Thabit mm-hmm. ak ñeneen ci saxaaba yonantu radiallahu tabaraka wa taala anhum ajmain am na it ay saxaaba yoo xam ne jëlee nañ xadis ci moom mel ni Abdullahi Abbas ak Abdullahi ibnu Omar ak Jaabir ak ñeneeni saxaaba ak sax kibaaru taabiin kibaar mooy way magi taabiin yi mm-hmm. ku mel ni said ibnu almusayab mm-hmm. ku mel abu uthman ku mel tariq ibnu shihab mm-hmm. ak ñu dul ñoom eh, li lay wan ne lim solo ci xadis jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa mooy da nga fokk ne jëli bi junney xadis ak téeméer ak juróom-ñaar fukk nga xam ne nettalil na ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam cheykhaani mm-hmm. mm-hmm. seydna imam buxaari ak imam muslim mm-hmm. daa fekk ci seen téere ñoom ñaar téeméeri hadis ak fukk ak benn yoo xam ne ñeen fukk yaak ñett dëppoo nañ ca buxaari fukk ak juróom benn muslim wéetee juróom fukk ak ñaar li nga fekk yeneen i xadisam yi ci téere sunna yi mm-hmm. hmm? mm-hmm. borom masaanid yëpp mm-hmm. téere sunna dafa am téere yi ñuy wax masaanid mel ni musnad imaam ahmad ibnu hanbal am ñu ñuy wax sunan mel ni sunan yi abi daawuda borom masaanid ak borom sunan yëpp di fekk xadis yi saydna abu said alxudri radiallahu taala anhu nekk fa istiqaamatoom mm-hmm. taroon na lool mm-hmm. xëram ci dëgg noonu mm-hmm. mosu cee ragal lawmata laa'imin dalika fadlullahi yuutihi man yasha hmm? mu ngi faatu nag ci madinatul munawara atum juróom-ñaar fukk ñeent fekk booba am na juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn nee na anna rasulallahi naka yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama qaala wax na ne laa darara déet ak lor wala diraara déet ak lore wala wala diraara déet ak lorante ak dararu mooy lor moo xamu ne ci jëmm mbaa ci xalal mm-hmm. mbaa ci sa njaboot mm-hmm. nit mën na laa lor mm-hmm. ci jëmm mën na laa lor ci alal mën na laa lor ci sa waa kër yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee yooyu yëpp waree su caa lor nit it mën na lor daaba yi mbaa mu lor kawnu bi dégg nga waxam juri kër yi la wala garab yi la yonentu nee na lor googu mënta xam warta xam mm-hmm. wala diraara mm-hmm. ak lore it mm-hmm. warta am wala lorante ñu ne lor mën naa am ci dul jublu waaye lore moom ci ak jublu lay dox maanaam dararu nit mën def te fekk jubluwut ca mm-hmm. waaye diraar nag mm-hmm. moom day fekk ñu jublu ca mm-hmm. nit mën na laa lor te du ko yëg waaye nit mën na laa lor te yëg ko hmm? tey jii nii mën nañoo dëkk ma am garab ci sama kër ji sotti ndox pour mu uh, sax ndox mi ma ciy sotti di yol ba yegg sa kër hmm. te fekk man jubluwuma ko ci hmm. yëguma ko sax hmm. loolu lor la waaye bés bu ma ko xamee nag dama ko war a arrêté wala ñun ñaar ñu am jafe-jafe ma jublu lor la loolu yonent yu tere na ko mooy laa diraar waaw diraar moom jublu lay dox nga jublu maa lor hmm. ma jublu laa lor hmm. wala ñu jubloo lorante hmm. yëpp yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee lislaam wala sun borom taala daf koy tere bokk na ci alqawaid alkubra yi nga xam ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci alqawaidul kubra defe naa mos nañ ko fee lim bu njëkk bi mooy al umur bi maqasidiha mbir yi ñu ngi ci seeni jubluwaay mm-hmm. li ciy tegtal mooy innamal a'maalu binniyaati mm-hmm. mm-hmm. ñaari nit dana ñekk ci jàkka ji kenn ki di bàkkaar kenn ki di am tuyaabu te ñoom ñaar ñëpp kat ñu ngi toog jublu penku ki ñëw ci jàkka ji di tuyaabu am tuyaabu mooy ki nga xam ne dafa ñëw jublu xaar julli ba amul jublu fi li ñëw na toog di xaar julli waa mu toog fekk li'tikaaf la ci jublu am na koo xam ne mi ngi toog dend ak moom jublu penku ni moom waaye mi ngi am bakkaar moom lu tax ndax dafa jël yëfi jàmbur ñu di ko seet mu xam ne ñi koy seet duñ eh, ñëw ci jàkka ji mu ñëw toog fi mu ngi ci jàkka ji waaye yéeneem tax na mu ci bàkkaar fëleen ci jàkka ji yéeneem tax mu nekk ci tiyaabo mooy al umuur bi maqaaside ñaareel ba mooy almashaqatu tajlibu taysira jafe-jafe su amee rek yomb-yomb ñëw jafe-jafe dafay woo yomb-yomb kii tukki mi ngi ci jafe-jafe ñu ne ko ñeent nga doon julli jullil ñaar léegi kii amul ndox mu ngi ci jafe-jafe ñu ne ko au ngay jàpp tiimal mbaa am nga ndox hmm. waaye yaam ci tukki moo xam ne boo jàppee ndox mi hmm. mar dana la rey hmm. ñu ne la naanal ndox mi da nga tiim jafe-jafe dafay bijj yomb yomb ñetteel ba al laa yazulu bi shakk lu wóor lu dëñee ci euh, sikk sàkk da julli sikk sàkk ñett nga mbaa ñeent li wóor mooy ñett mhm. li wóorut mooy ñeent mhm. kon indil beneen mhm. nit ki dafa eh, sikk sàkk ndax jàpp na walla jàpput li wóor mooy toj gi li wóora di mooy ñàkk jàpp kon demal jàpp ñàkk jàpp gi sikk ki nga sikk lu dindi toj gi nga xam ne wóor na al yaqiinu mm-hmm. laa yazulu bi shakk mm-hmm. ñeenteel bi ñu ne al aadatu mm-hmm. muhakkamatun aada dañ koy atteloo fekkee ci marché bi miin nañ soo ñëwee jël dara rek dégg nga ab tàngal la nga teg fa dërëm dem loolu marché bi baaxoon nañ ko ba mu nekk aada ci ñoom boobaa aada joojut dañ cay àtte woo day mel ni rek man ak yow waxtaan nañ ba juboo nga jox ma ma jox la fekk sax yooyu yëpp amut da ñëw rek jël sa dërëm bi teg daal di jël tàngal bi ndax loolu ci aada yoo marché bi dërëm euh, dégg nga euh, tàngal dërëm lay jar te noonu lañ ñooñu noonu la ñuy jëndantee mu aada jooju dañ koy àtteloo kon aada dañ koy àtteloo waaw mm-hmm. féet mm-hmm. dégg nga safaanowut ak sharia mm-hmm. moo nga gis ci sëy hmm. ñi nga ñi balaa ñoo takk joxe guru hmm. ñi defee nii ñi defee nale hmm. lépp di wane ne wane d'accord nañ ci yëf yi am aada yooyu lislaam wañut ko juróomeel bi te moom lañ soxla tey mooy ab dararu yuzaalu lor dañ koy dindi lu tax la darara wala dirara lor dañ koy fekk ba du am su amee it hmm. des koo war a bind dañ ko hmm. war a dindi hmm. moo tax bunt bu mag la ci euh, bunti fiq rawatina nag ci jëflante mel ni jaayeeg jënd wala tayleeg wala sëy yooyu yëpp dafay dafay dafay dafay am wala ci wàllu sax nit koo xam ne war na fee jógee waaw saa yu lor saxee ak yëkkati ko war saa yu lorante saxee hmm. ak yëkkati ko war hmm. ah hmm. ki lor te tayut ko nag kooku dañuy fexe ba lor ga dëñ rek waaye ki jubloo lor nag danañ fexe ba lor ga dëñ te boo moytu sax danañ ko ah, dañ tabal ci moom aqubatu ah, ah, muy danañ ko mbugal maanaam nit mën naa def dara te tayut ko waaw dañuy fexe ba loru googu kam ko def hmm. ñu dindi ko hmm. waaye bu ñu xamee ne intention am duutoon lor hmm. kooku mu dañ koy bàyyi rek mu dem waaye ki nga xam ne nag moom dafa def dara te tayu ko kooku danañ fexe ba dindi lor googa mu lor keneen waaye du moom gannaaw xam nañ ne moo ko tey danañ ko mbugal ah, ki nga xam ne otoom dafa mbëkk nit te gisut ko bu ñu leeree ne tayut ko mm. mën naa am buñ ko def dara mm-hmm. waaye buñ xamee ne moo ko tey mm-hmm. kooku lor gam lor danañ ko dindi mm-hmm. waaye moom it mën naa am yóbbu ko sax kaso moom dañ ko mbugal ci jaahiliyatu daan nga jis koo xam ne ni fa daan fase jabaram su demee ba iddaam jege jeex rek mu fay la ko daal di ko fasewaat soo iddaam jege jeex rek mu fay la ko daal di ko fasewaat bu mm. iddaam jegee jeex rek mu fayle ko mm. noonu la koy defee ba la nihaayata mm-hmm. li eh, talaaqi mm-hmm. lu mu ci jublu mm. mooy man bëggatuma la duma la yore waaye duma la bàyyi beneen góor yor la mm-hmm. bu ko defee mu ngi koy lor bi lislaam ñëwee nag daal di yemale fase yi talaaqu marrataani fa imsaakum bi maarufin aw tasrixun bi ixsaan ñaari yoon rek nga am fas nga am droit fase jëlaat mm-hmm. su ñettee nag mm-hmm. mënatoo cee jot mm-hmm. fa in tallaqaha fala taxillu lahu min baad xata tankiha zawjan gayra hmm? wala waaye ngi ni fase jabaram mm. mu am moom ay doom mm. doom yi dégg nga ñu ne ko bàyyee ko soxna si mm. feeg soxna si sëyut soxna si bëgg a sëy waaye ragal na ne su amaatee beneen jëkkër hmm. waa ji dégg nga jël ay doomam hmm. bu ko defee mu koy wax ne ko waaw bés boo sëyee rek mu jël xale yi hmm. dégg te mën naa am su sëyee bu jëlee xale yi du leen yore ndax am na ay yeneeni doomam ci yeneen yeneeni soxnaam yoo xam ne eh, yorewut leen Mm-hmm. toppatoo leen toppatoo ko ca war mm-hmm. waaye mu ngi tiitalee ndaw si loolu mm-hmm. ngir ndaw si bañ a sëy jublu ci lor ko lor dañ koy dafa xaraam lor googu dafa xaram hmm? walla waaye ngi nii mm. bëgg a dee mm. ndax xam na ne lislaam moo wax ne bu dee mm. ay noon way donoom ñooy jël alalam te way donoom mën naa am jubóowut ak ñoom tax mu daal di wax ne su ma fi jógee hmm. sama genn wàllu alal hmm. nañ ko saraxe wala nañ ko jox diw hmm. dénkaane ko pour ne may naa ko diw kooku dañ koy dafa xaraam lu tax euh, jublu gën ca jublu euh, lor leen wala jublu gëm ca jublu xañ xañ leen dafay tax mu xaraam ànd ak nag mënoo joxe ci sa alal lu ëpp sulus alal ji buñ ko xaajee ñetti xaaj aji dee ji mënu caa joxe lu ëpp sulus Hmm? Hmm. loolu eh, yenn la ci misaal yi nga xam ne mën nañ koo misaalee ci hmm. ndax li lim ci lim ci jublu mooy ak lor yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na laa barara wala dirara mu ne xadis ji nag xadisun xasanun rawaahu ibnu maajata wa daaru qutni wa gayruhuma eh, defe naa <coughs> waaw waaw mu ne imaam imaam ibnu maajata ak daaru qutni ak daaru qutni hmm. wa xayruma ak ñu dut ñoom ñaar hmm. sol nañ xadis ji musnadan muy li ñu isnaat hmm. mooy ba ca yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa rawaaw imaam malik wa rawaaw malik imaam malik nag solo na ko fi muwatta yi ci muwatta mursalan muy muy muy xadis bu xam ne mursal la an amr ibni yahya an abihi an innabii sallallahu alayhi wa sallam xadis mursal hmm. mooy xadis joo xam ne don nga koo solo ba ci yonantu hmm. waaye nga rotol ci turu hmm. dégg nga saxaaba moo tax mu wax nii fa asqata aba said aba said mi tudd na ci kaw ne moo solo xadis yi boo demee ci muwatta u malik moom indiwut ko dafa solo rek an amri ibni yaxya an abihi kii yaxya an nabi sallallahu alayhi wa fa asqata mu rotal aba said mu ne walahoo ñeel na xadis ji nag turuqun ay yoon yu qawwi yoo xam ne dana dëgëral baaduha yennam mm. baadan yeneen mm-hmm. baaduha yennam mm. baadan lenn mm-hmm. wala baaduha lenn baadan lenn xadis mm-hmm. ji am na ay yoon nag mm. yu bari yoo xam ne boo leen boolee xadis ji dëgër ndax xadisu mursal dégg nga dafay tax mursal dafay tax xadis ji dégg nga lompoñ suñ ko su fekkee ne nag am na yeneen yoon ni ki yoon yeneen yi nga xam ne am na euh, isnaat nañ ko tudd ci Abu Saïd donte am na yeneen doxfu yu ci nekk hmm. yoon yooyu dafay tax xadis ji dëgër hmm. moo tax mu ne xadisun xadis la hmm. xasanun dégg nga ju rafet xadis ji bokk na ci qawaacid yi gën a mag ci qawaacidu charci yu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, xaw naa gàtt waaye eh, boo bëggee ñu jël bi ci des xool bi ci des bu fekkee guddul ñu jël ko mm-hmm. Mm-hmm. nee na alxadiisu thaalithu wa thalaathuuna mm-hmm. xadiisu fanweer ak ñett wala fanweereelu xadiis ak ñett an ibni abbasin jëli nañ ci seydna abdullah ibnu abbas radiyallahu tabaraka wa taala anhuma moom turam jaar na fi jaaraat bàyyi taxu yonent bi doomi bàyyi taxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom la yonentu ñaanaloon yàlla yàlla na nga ko déggal déggaloo diine te xamal ko taawil allahumma faqihu fi diini wa allimhu taawila bu hmm? jege woon yonent bi la ndax tantaam biir kër yonent bi la doon sëy mm-hmm. bokkam yonent bi la ba noppi mm-hmm. tantam di sëy ci biir kër gi mm-hmm. xam nga kon dafay am accès muy Maymunatu Maymunatu ak euh, yaayam euh, Ummul Fadl dégg ay mbokk lañu ñaaram ay sœur lañ radiallahu anhuma yal na yàlla boole leen gërëm maanaam Abdoulaye ak baayam Abbas kii bàyyi taxi yonantu mm-hmm. moo ko wéyoon way wu si woowu mm-hmm. min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdain xaytu yuxsafu lwaraqu summa mm-hmm. habat albilaada laa basharun anta wala mudgatun wala alaqu bal nutfatan tarkabu sabina waqad aljama nasran wa ahlahu algaraqu waradtana ala alxalili muktataman tajuudu fiha walasta taxtariqu wala wa kayfa taxtariqu ñaari riwaaya yëpp ñëw nañ bal nutfatan it mutaharan it ñëw na mutaharan tarkabu safina tunqalu min saalibin ila rahimin ida madaa alamun bada tabaqu xata xtawa baytuka almuhaymina min xindi faaliha taxtaha nutuqu wa anta lamma walidta ashraqat ilardu wa taat bi nuurika luhuq sallallahu alayhi wa sallam nee na anna rasulallahi ne ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na hmm. law yuctaa su joxeefoon hmm. annaasu nit ñi hmm. bi daawaawam ci sabab si seen ak woote la daakan woote rijaalun ay waay amwaala qawmin alali aw nit wa dimaahum ak seeni deret su fekkoon ku ne diw yoreel na ma rek ñu ne ay ce yaa ko yoreel wala ku ne diw rayal na ma rek ñu ray mm. mu ne ko noon aw nit mm-hmm. danañ woote mm. ne ñoom moom alali jàmbur mm-hmm. danañ woote it mm. ne diw rayal na leen diw mm-hmm. daña ba ba ba ba ba ba ak fayu dikk maanaam alali jàmbur yi dana demee eh, dana demee kasara jëreeti jàmbur yi dana demee kasara hmm? walakin li fi nekk hmm. albayinatu preuve hmm. alal muddaay danañ ko firee seede waaye preuve rek la hmm. Ah, nag lamb na seede lamb na leneen albayinatu preuve alal muddaay war na aji woote ji ki woote ne diwoo ma yoreel wala diwoo ma def fokk mu am wal yaminu ngëñ su fekkee ne ki woote amut preuve ki ala wali ngëñ moom hmm. ala man ankara war na ki weddi hmm. ki ne yow déedéet fay fen yoralu ma ko dara wala defuma ko dara hmm. su këlee amul preuve yow li lay musal mooy nga gëñ mu ne xadisun xasanun xadis ju rafet la rawaahu solo na ko albayhaqiyu wa gayruhu ak kudut moom al imaamu albayhaqi solo na xadis ji ci eh, assunanul kubra dégg nga imaam Buxaari solo na ko ci maana ci kitaabu tafsir mm-hmm. ba mu wax inna alladina yashtaruuna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila mm-hmm. ci waxi yàlla jooja mm-hmm. imaam Buxaari yéen na fa hadis ji ci maana imaam Muslim tamit ci kitaabul aqdiyati ci baabu alyamin ala almuddaa alayhi almuddai mooy ki tuumaalaate wal muddaa alayhi mooy kiñ tuumaal Mm-hmm. law yutaa suñ joxoon mm-hmm. annaasu nit ñi bi daawaahum ci sababi seeni tuumaal rek mm-hmm. la daa tuumaal la daa woote rijaalun waay ay waay abwaala qawmin alali aw nit wa dimaam ak seeni deret walakin li fi nekk albayinatu preuve alal mudda'i war aji tuuma war aji woote war aji joxoñ baaraam wal yaminu ngëñ la mm. ala man ankara mm. war na ki weddi xadithun mm-hmm. xasanun mm-hmm. rawahu lbayhaqiyu mm-hmm. wa gayruhu akudu lbayhaqiyu hakada nii wa baaduhu wala wa baadahu ay wa rawa baadahu lenn ci xadis bi solo na ko dégg nga eh, fi saxiixayn imam Buxaari ak muslim ci seeni saxiix hmm? law yuta mm-hmm. kon am na kuy joxe mm-hmm. kiy joxe mooy kan mm-hmm. ki nga xam ne am na xàq ci joxe ni ki qaadi wala ki nga xam ne moom lañ teg pour mu yéwénal diggante nit ñi hmm? daawa mooy woote dara saxal ko wala woote dara dàq ko saxal ko nga ne man de diw yoreel na ma nangam dégg nga hmm. dàq ko hmm. mooy weddi ne hmm. di yoralu dara bu ko defee ñaar yëpp daawaa la ñaar yëpp daawaa la wala ku njëkk ki mooy muddaci ku ñaareel ki mooy muddaa te ki al muddaa alayhi tamit dafay def inkaar te inkaar it lëf la ci daawa maanaam ñi nga xam ne ragaluñ yàlla su fekkoon ne ku ne maa moom dara rek ñu jox la ko konoon danañ woote alal li jàmbur ku ne diwa ma rayal rek ñu nangu mm. konoon danañ wax danañ rey deret yoo xam ne mm. wala bakkan yoo xam ne mm. ñu ñu ñu innocent lañu mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. ñu innocent lañu mm-hmm. hmm? daawa dana nekk ci deret dana nekk ci alal bi tax li ci li ci tegtal mooy amwaala qawmin wa dimaahum hmm? dana nekk ci deret mm. dana nekk ci alal mm-hmm. dana bu dee ci eh, alal mm. dana mm. nekk ci alal yoo xam ne alal yu alali jëmm la dana nekk ci alal yoo xam ne alali njëriñ la mm-hmm. mm-hmm. alali jëmm mooy xar mi diw yore maa ko moom dégg nga alalu njëriñ mooy eh, njëriñu location ab néeg mbaa location ab oto wala yu mel noonu dana nekk ci dégg nga euh, njëriñ yoo xam ne dafay dellu ci xaq mm-hmm. par exemple mm-hmm. ni ki waaye wax ne moom de mm-hmm. soxnaam dégg nga sàmmwante wala xaq yi nga xam ne ñoo war ci moom wala soxna si ne jëkkëram so so euh, dégg nga euh, taxawee woon xaq yi nga xam ne ñoo ko war waaye alal rek la tudd ak deret waaye yemut foofu yooyu ay misaal la rek da ngay jànge ci hadis ji mooy hmm. sharia dafa ñëw hmm. ngir xaar dereetu nit ñi hmm. mooy seeni bakkan ak lépp lu aju ci seeni cër ngir xaari seeni alal moo tax balaa cee dara di jóge ci kenn jëm ci keneen wala wala ci dara di sax ne di sax ne keneen la moo keneen la ñeel ci ku woote fokk woote googu am ay preuve preuve nag hmm. am na ay xeet hmm. preuve dana nekk seede hmm. ni wax yàlla ju ne wastashhidu min rijalikum fa in yakuna rajulayni fa rajulun wa imraatani mimman tardawna min ashuhadaai preuve dana nekk zahirul xaali danañ ciy misaale ne waaye ngi topp waaye daan ko jox ma sama kaala gi Mm. mi ngi kaalawu téye kaala ci loxoom mm. ki ko topp moo amul kaala ci boppam mm. eh, li waahirul xaal li muy wane mooy ki yoree kaala gi ba pare am kaala ci ki ki kaalawu ba pare xamee kaala ci loxoom moo yore kaala ak jàmbur mm-hmm. ndax miinu nit ñi di kaalawu ba pare téye geneen waahirul mm-hmm. mm-hmm. xaal googu mën nañ caa dëgg pour seet Mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ay preuve yoo xam ne yu complémentaire la mm-hmm. pour mën a saxal ni kii moom moom kaala gi loolu misaal la ci misaalu euh, shahidul xaal hmm? shahidul xaalit danañ ko gis ci ñaari woy dencante suñ xuloo woon ci ay ndab ci ay bagage ci biir kër gi kii ne maa moom kële ne maa moom ñu seet bagage yi ñuy xëccoo ndax aadatan góor a koy moom bu fekkee waaw ñu nekkoon góor gee ko moom bu fekkee jigéen koy moom bu fekkee waaw ñu nekkoon jigéen jee ko moom loolu mooy shahidul xaal kon dégg nga euh, bayi na dana nekk shuhud mu yaay seede dana nekk shahidul xaali dana nekk tamit qara'in nekk it qaraa'in mm-hmm. eh, lii tegtal ci qaraa'in yi mooy qissatu mm-hmm. sayidna suleymaan mm-hmm. ak baayam sayidna daawud alayhim assalaam yi nga xamee ne ñaari jigéen ñëw nañ di attewu ci ñoom njëkk dem ci daawuda mu atte leen fekk dañoo xuloo ci kii moom doom ji hmm? kenn ci seeni doom dégg nga till daf ko lekk mm. tillu daf ko rey mm. Seydina Daawuda mm. ci ijtihaadam mu ne ku mag ki moom doom ji daal di ko atteel hmm? am na ñu ne xëy na mi ko teg ci ne ku mag ki mënatul jur mm-hmm. kon na ko jox doom ji rek mm-hmm. xale bi moom mi ngi ci njël dund mën naa jur mm-hmm. waaye loolu warta tax ndax loolu du mandute kon daawuda ak farlu la def mm. ba jàpp ne lii mooy dëgg mm. euh, mu mu mu daal di mm. waaye bañ génnee Seydina Suleymaan gis leen mm-hmm. mu mel ni ñu ngi ci xëccoo ba léegi mm-hmm. mu laaj leen lu xew ñu nettali ko mu ne ah man d'accord moo ji ni sama bàyyi man ni may àttee mooy xale bi dañ koy xaaj ci digg bi mm-hmm. indi leen ma paaka mm-hmm. ma xotti xale bi ci digg bi ku nekk ci yéen jël kenn wàll mm-hmm. ku mag ki amu ci problème d'accord ku ndaw ki ne ko ah, déedéet doom ji doomam la hmm? ba mu ne jox ba mu ne doom ji doomam la maanaam jox ku makkee ko moom Seydina Suleymaan ne ah kon nag yow ku xale yow ndaw si yow ku ndaw si yow ndaw yow ki yaa moom doom ji lan mooy xarina bi foofu mm-hmm. Mm-hmm. mooy moom mm. euh, ku mag ki mm. yoonam neewu ci doomam dee na bu kii dee it mm. moo kii ñu ñàkk rek mm-hmm. gannaaw mënu koo am na ko na ñëpp ñàkk rek kële nag moom gannaaw moo ko jur sama doom keneen yoral ma ko dégg nga li muy métti metti moom ba gënal mu dee ma ñàkk ba faw hmm? xarina boobu li ñuy wax xarinatul xaal googu ci la Seydina Suleymaan dégg nga sukkandiku mm-hmm. ba atte li nga xam ne mooy mooy atteb dëgg mm-hmm. donte daawuda ci ijtihaadam moo tax ñu ne ndax yonoon dana def ijtihaad ñu ne waaw mm-hmm. ñu ne ab yonontu bu defee ijtihaad ndax dana juum ñu ne dana juum ñu ne du juum waaye li ñu wax yëpp benn la buñ ne du juum mooy yàlla koy wax atte bi du juum buñ ne dana juum waaye du waaye du juum waaye juum nga du nekk njuumte lu tax mooy njuumte yàlla du ko seetaan su juumee it yàlla dana wax moom ne ko dangaa juum mm-hmm. jox ko atte bi jub mm-hmm. wala jaarale ko ci keneen ku mu yónni mm-hmm. ni mu wan ko ne ko du noonu mooy atte bi ni ki ci xisaay Suleymaan ak Daawuda hmm? qarinatul xaal alquran indi na ko feneen Seydina Yuusufa bi nga xamee ne ndaw si nga xam ne moo doon sangam sàkku na ko te Seydina Yuusufa bañ ndaw si topp ko mhm. ci biir néegi yusufa di ubbi néegi di daw mhm. mu koy topp mhm. di ko sàkku bañ demee ba ca buntu ba dégg nga fekk fa azizu misra ndaw si daal wax ne ah loo xam ci kuy sàkku sa waa kër hmm? yusufa daal di ne déedéet moom moo sàkku yàlla ne wa shahida shahidu min ahliha ah, dégg nga aji seede ci ñooñ ndaw si seede lu mu wax ne hmm. in kaana qamisuhu qudda min qublin hmm. fa sadaqat wa huwa min alkaadibina hmm. wa in kaana qamisuhu qudda min duurin fa kadabat wa huwa min alsaadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duurin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim in kaana xamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkaadibin nañ xool mbubum yusufa mi ndax ci kanam la froissé wala xotteeku bu fekkee ci kanam la fa xotteeku mbaa mu ci kanam ñu xam ne yusufa moo doon sàkku ndaw si ndaw si di ko bëmax ndaw mm-hmm. si di ko jëñ mm-hmm. wa in kaana qamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min asaadiqin mm-hmm. su fekkee mbuboom nag ci gannaaw la xotteeku wala ci gannaaw la froissé ñu xam ne ndaw see ko doon xëcc yusufa di daw fa lamma raa qamisahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna ba ci ginnaaw moom asiru misra innahu ne innahu min seen pexe la yéen jigéen ñi inna kaydakunna azimun seen pexe lu mag la loolu qarinatul xaal mm-hmm. moo seetal yusufa foofu le mm-hmm. mm-hmm. bokk na ci qarinatul xaal waaye waaye ngi nii moo soxnaam ñoo dëkk kenn dëkkut ak ñoom te bés bu set ñu gis ne buy wàcc dana yore dund ci loxoom moo xam lu ñuy lekk la ak mbaa lu ñuy naan dugal ci biir kër gi muy mburu wala ceeb wala yu mel noonu te kenn dëkkut ci kër gi mook jabaram rek a fi dëkk jabaram nag yóbbu ko ci yoon hmm. ne waaye ja waaye ji ata ngi ni musulma dundal dañuy xool xarinatul xaal comme ñoom ñaar rek dëkk ci kër gi hmm. te bés bu set ñu gis waa ji indi ci dund ci kër gi hmm. xarinatul xaal mooy ndaw si fay fen waaye jéeng koy dundal waaye koy dundal yooyu yëpp ay xeet la ci xeeti preuve moo tax yonentu sallallahu lakin albayyinatu ala iddaa wal yaminu ala ankara kon képp koo xam ne woote nga la woote balaañ ko nangu fokk ñu am bayina bayina nag mooy preuve ba ci dégg nga xeeti preuve yu bees yi mel ni wàllu caméra euh, de surveillance wala vidéo yi la yooyu mm-hmm. mm-hmm. ay xeet la ci na yoo xam ne mm-hmm. dañ koy nangu ci mbir yu bari hmm? ba ci DNA yeeg yu mel noonu dañ leen di nangu waaye yu ci nekk nag sharia dafa am fu mu leen fu mu leen yemloo sharia dafa am fu mu leen fu mu leen yemloo xadis hmm? la joo xam ne xadis ju uh, matériel la hmm? waaye it waaye ngi nii ñu tuumaal ko hmm. mu weddi hmm. ñu ne ko waatal hmm. mu ne moo bañ kooku bu ñàkk ñàkk waatam googu dafay saxal ne kon liñ koy weddiloo liñ koy tuumaal ah, laale na ca maanaam bu waaje amul euh, preuve ki nga xam ne moom lañ tuumaal pour mu set fokk mu gëñ su bañee gëñ kooku nukkool lañ koy tuddee mooy kon liñ hmm. lay li ñuy tuumaal hmm. moom setu ci hmm. ñuy tuumaal moom setu ci albayinatu ala man iddaa wal yaminu ala man ankara waaw comme ñaari hadis la ñu bañ a guddal bu mu ëpp hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk